Tudd Eliman nekk président ODCAV de Fatick ci mandat bi ñu nekk nii ñoo ngi euh, le cinq la mun ci la jeex mooy lépp lu dem ci affiliation réaffiliation ci lañ nekkoon mais aussi ak transfert yi dañu gën a xam ci ay démission ci yooyu lañ nekkoon bay door a jeexal ñu euh, dugg ci enrôlement licence yi presque mun na wax ne démb parce que ñoo ngi woon ak ñi nga xamante ñu nekk euh, phase nationale présentement ñi loolu la ñuy def comme yàlla dafa def ren am nañu quatre représentations au niveau des phases euh, régionales yi ñuy organiser Kaffrine mu nekk Diambougou bu Niakhar Euh, nekk également ci euh, euh, nu tuddati Linguère bu Fimela ci département Fatick am na nag aussi département Gossas am na kade yi xandaalu fa lañ te Tessito aussi mooy deuxième équipe senior bi troisième équipe senior bi nga xamante ne daf fay dem donc ñeenti ñooñu yëpp nag la ñu war a defaral fii seen i licence yàlla dafa def fii dañ ko bokk ak waa ORCAV dañuy liggéey en même temps ODCAV di liggéey ORCAV donc ci enregistrement licence bi nga gis nu mu toog nii mooy waa Jambugum waa Linguère de Fimela fii lañ jóge léegi waa Tesito aussi xam naa suba ak jàmm la ñu xam ne dinañ ñëw pour licence pour wax daal que ni ren moom bon ñoo ngi door a commencé ak licence su waa phase nationale yi ci yooyu lañ nekk nii. waaw xam nga ñun moom lép information boo xamante day am ci zone dañ ñu koy remontel effectivement zone un gis nañ à travers euh, les réseaux sociaux que def nañ seen tirage donc pour dire que zone deux jotaguñu seen euh, seen kii euh, calendrier tiraaj bi zone un xam naa suba ak jàmm la ñu wax ne dinañuy def réunion te bu ñu réunir ci la ñu fas yéene def seen tirage pour wane ne au niveau des zones un et deux léegi ñoom presque ci kii mais au niveau départemental aussi gaa ngi agité wu au niveau de Diofior dañu manqué woon ay kii euh, nu mu tudd terminé seen championnat daaw xam ngeen ne daaw affaire yi métti na ak inondation yi am nañu bëri ñoo xam ne bëggoon nañu jeexal te mu ñun woon jeexal euh, mais déjà ñooñu commencé nañ pour jeexal championnat daaw bi pour entamer bu ren euh, ñun aussi li ñu ci war ñoo ngi jël dispositif yi pour que licence yi mun a ñëw à temps nouveauté bi mooy léegi licence yi buñ ko tiirewul Kaolack xam naa fii lañ koy tiire au niveau de Fatick contrairement à ce qui se passait les années précédentes nga xam ne da nga doon dem ba Dakar eh, wala ñu envoyé la ko Dakar muy kii mais fi mu nekk nii lépp lu ñu enregistré eh, c'est fort probable que ñu enregistré ko fii pour l'instant nag moom ce kii sur sûr mooy que Kaolack lañ koy tiire dañuy dem tiire suñu licence ñoom jox ko ASC ñoom ñu dem football pour dire que daal dispositif bi ci war yëpp ñoom ci jël ay mesures pour que loolu mun a antu xam nga ASC yi moom nawetaan moo tëddee noonu euh, comme dafa am lu ñuy seq ñu ñëpp lu ñuy régir muy suñu règlement yi buñ la nee bul def lii euh, da war a bañ da ko war a moytu euh, li ci am solo mooy que ni yaakaar naa ne ñëpp ñu ci waroon a wax wax nañ ci parce que bu njëkk waa zone ba la contentieux bi foofu la jógee ci affaire réserve waa zone aussi buñ defee seen recherche euh, def seen lépp euh, xool que ni ASC bi moo tooñ eh, moo def loo xam ne waru koon def parce que jël nañ ci mesures yi ci war yëpp nag vraiment def ay audition lépp ñu def ko mu ñëw au niveau de l'ODCAV aussi vraiment ñu ñefewaat ñu gën a approfondir woo ñëpp ñi nga xamante ne jot nañ takk ci dossier bi ñu woo leen déglu leen defar PV d' audition yëpp wax leen ne effectivement yéen a wax lii bo ñu rokkatee ñëpp ñoo wax loolu la ci waroon yëpp ñu def ko euh, confirmer la zone ba waxoon parce que presque boo seetloo wax yi dañoo méngoo mais comme aussi am na possibilité buñ la atee au niveau régional ça veut dire que sa zone sa ODCAV doyu la mun nga dem au niveau national et effectivement droit la pour ñu def ko dem nañ au niveau national niveau national aussi biñ leen jébalee kayit yi yi nga xamante ne ci lañ atee euh, ñoom aussi gis nañ que ni ñun ñu am dëgg par rapport ak li ASC bi doon kaas donc ko defee au lieu ñu yem nag ci ñun li ñu yemoon parce que ñun dañoo jàppoon rek perte de la rencontre par pénalité ñoom ñu ne euh, lii waru leen woon yem sax ci perte de la rencontre par pénalité dal di des euh, suspension xaw ma un an donc noonu la fa noonu la fa demee. nawetaan dafa nekk ni ñu naan day fonctionner sous le principe euh, du centralisme démocratique moins que les structures inférieures se soumettent aux décisions des structures supérieures et aussi am na ay possibilités ku sa ak ak sa yëngaaf dañ la koy jox ba mu mot sëkk ñun waa Fatick au niveau zonal wala au niveau départemental wala au niveau régional luñ la atee bu la doyul. am nga possibilité nga dem au niveau ONCAV par voie li ñuy naan peut-être nga def appel bu nekkee ORCAV la moo la ate te doyu la da def appel au niveau kii au niveau de la commission CQRP de discipline de l'ODEC de bu nekkee ne nag dafa jóge woon par exemple zone jaar ODCAV e da ngay def lu ñuy wax saisine au niveau de la commission de la saisine de de de saisine de donc pour dire nawetaan ak ak yelleef képp ku ne dañ la koy jox mu mais dang il faut nga yow nga xam li la war nga war a xam ne man aussi ma war a def lii wala ma warut a def lii bañ nañ ko ba am texte texte bi bu njëkk sax dañ ko doon jaay modifié nañ ko bëri am na exemplaire yu may seen nëri ak yeneen yoo xam ne ñoo gën a bees ainsi de suite mais même yooyu sax malgré tout ça euh, tout ça euh, tout récemment lañ dem ci wàll defar texte yi foofu mu lewaat ko def ko ci plateforme yi pour que ñi ñu naan nul n'est censé ignorer la loi ñëpp a ci jot instant bi képp koo xamante da nga yëngu yëngu ci nawetaan am nga possibilité à partir de ton téléphone nga xam lañ la ñuy aaye ak lañ la ñuy la ñuy lañ la autorisé donc pour vous dire que loolu nekkatul loo xamante ne peut-être ñii fo xam ñii xamuñ ko li ci mën a nekk mooy euh, interprétation yi bokkul nga jàpp ne man nii laa ko gisee fekk nit ñi jàpp nañ ne aussi nee la waroon nañ kii parce que dafa am esprit am leer te bind na li muy bind loolu moom garaawul mais ki nga xamante ne fekkee na aussi des fois mu ëppale ci tuuti xam-xam waaw moo tax souvent interprétation yi di jafe xanaa ñaax nit ñi rek zone yi à tous les niveaux ñun ñi ñëpp dañuy laajte dañuy jàng donc ñu ñaaxaat nit ñi aussi ñu def ay gëstu def ay session de partage toog yendoo ak nit ñi ñu bokk partage xalaat euh, li nga xamante ne moom moo nekk ci texte yi wala même siège bi fii di boor ku jóge fële xaaral ma dem yendu tey loolu c'est pas interdit nga ñëw di dégg diw kii di laajte di dof dof la comme li ñuy ngeen baal ma ci terme di ko wax pour nit ñi peut-être la nga xalaat ñu wax nga xam ne effectivement ak ni ma xalaat woon méngoo na wala bu amee waroo tam ñu ne li nga xalaat nekkul noonu. waaw loolu yàlla sant également communauté yëpp ah parce que man duma ko résumer tout simplement pour kii du ma ko résumer pour euh, la commune de Fatick. mais dama koy élargir en tant que euh, président ODCAV xam ne jafe-jafe yooyu am na partout partout dans le département amoon nañ jafe-jafe parce que c'était une situation un peu tax na ñoo xamante ne ñun du ñu eggali bu mu ñëwee nag euh, parti Fatick bi c'était un peu plus particulier plus difficile mais nag car macha allah acteurs yëpp à tous les niveaux même au niveau ODCAV jël nañ fi ay mesures ak waa waa ONAS yooyu yëpp ñu def ci ay jéego pour que ndox mi teel a euh, libéré espace yi nga xamante ne nii ñu soxla woon donc vraiment dañuy sant ñëpp ci remercier ñëpp mais aussi. di remercier le préfet du département de Fatick parce que ren pour parler à tout cela moom woo nañu rencontre ñu mu faral di ko defee à chaque fois pour que balaa ñuy tàmbali nawetaan yi ñu xool jafe-jafe daaw yi ñu mun ti tirer ay leçons pour que ren ji ñu mun a def ay kii yu bees jël ay jéego yu bees moo tax bu ñu woowee aussi waxtaan nañ ci entre responsable mais am na ay dispositions yi ci jël. Euh, par rapport aux inondations xam naa lépp du mënoon a am aussi euh, bon on touche du bois dañu ñaan yàlla aussi mu bañ a tee toll noonu mais bu yàlla defee aussi li mu nam rek ñun on est prêt pour vraiment andi suñu xalaat ak suñu expertise ak suñu doole yëpp pour que loolu éradiqué wu euh, point arbitre yi nag problème la du problème parce que en réalité genèse bi buñ ko waxee feneen la jógee ci ay subvention et que ni zone bi jot na trois cent mille ñun aussi du ñu jël deux cent mille trois cent mille la ñuy jël donc foofu je zone ak ak ak euh, structure yenn structure yi mënuñu tolloo jafe-jafe mënuñu tolloo également li ñuy def zone bi day organiser ay rencontre lépp lay def donc ci wàllu koppar moom je pense que moo gën a yelloo yenn montant yi que par rapport à certaines autres structures n'est-ce pas bi loolu amee aussi au niveau national la affaire yi dégénéré ñu dem phase nationale ñoom ñu ne daal bon ñii suñ leen dugalee dañuy kii ainsi de suite jàppal bàyyi ba ñoom ñu gedd dem bàyyi ñu jël ay dispositions également au niveau national euh, instruire nit ñi aussi au niveau local ñu fexe jël ay ay mesures euh, ay dispositions euh, pour que ñoom aussi seen championnat mun a egg ci boobu lañ jële nag ay arbitre ñoo xamante ne bon xëy na bokkoon nañ bu bàyyi wala ñi aussi bëggoon nañ bokk te yàlla def jotaguñu woon egg ci bokk bi euh, ñooñu jàpp ci mbir mi di di ñu ko gérer on l'a géré très bien l'année dernière ren aussi on a commencé euh, on a commencé avec les mêmes personnes euh, di xalaat mais nag bon toujours liñ koy waxee rek porte yi moom dañu ubbeeku comme ñoom ñoo geddoon dem je pense que buñ ñëwaatee dañuy ñëwaat on n'a pas de difficulté par rapport à ça dañuy toogaat waxtaan en responsable mun a jubóowaat mais li ma ciy yokk rek mooy que ni en tout cas amul école école boo xamante ne Sénégal ay fay jàngi arbitre rek arbitre moom da ngay kii rek bëgg dem peut-être formation accélérée wala nga jóg jékki-jékki nekk doon football dem arbitre ji ba petit à petit ba ba ngay am laame ba ngay expérience bi di ñëw donc je pense que nit ñi lii ma leen di ñaax daal ñu xam ne euh, képp koo xamante ne aussi da nga nekk ci beneen boor bi jaaroon nga ci nawetaan bi di ci jàng di ci tàggatu ba yàlla def tey nga egg fi nga egg euh, bu bu ma doon def kii bi je pense que au niveau de Fatick amul kenn koo xamante ne jaarul ci nawetaan euh, door a egg peut-être niveau bi nga egg tey ñii ñu nekkal nii aussi ci leen ñu ma li ma ci yokk mooy ñi ko doon ndem si yàlla doon waxe rek mbapat la ñuy jaar ci mbapat bi di jàng di def ay erreur ni ñi di ko muñ ñi aussi ñoo ngi ci mbapat bi instant bi ah, ñoo ngi jàng il faut nit ñi gérer ko nit ñi muñ ba xamante ne peut-être dina am euh, gën a amélioré par rapport ak li ñu nekkee nii te car macha allah nekkul ñoo xamante nag dañoo ñëw a ñëw ne rek ex nii loo xamuñ dara ci mi tane nañ ci car macha allah même au niveau international yenn difficulté yi day am ay vaar ak yooyu yëpp nekk na fi te yenn am donc loolu bu amee mun na ci njortu ne aussi ñii li ñuy def xëy na peut defuñ ko ci seen coobare mais peut euh, dara motul waaw yàlla rek moom mota lépp mais ñenn ñëpp dañuy jéem ko saa a xoolee peut-être euh, gënoon na métti mais affaire yi xaw na ah, tànn benn machine wala boo xamante ne moo nekk nii euh, maire Patar moo ñu ko mayoon depuis moom la ñu nekkee Aliou Diallo ñu koy remercier au passage lii ñoo góorgóorlu woon jëndal ko suñu bopp mooy imprimante bi ak machine bi di scanner euh, macha allah nag Bamba ñëw andi ñu machine de dernière génération ak clim ak euh, imprimante yooyu yëpp donc fi nekk ni on touche du bois mais côté matériel xanaa banc yu banc yu vétuste yi gis nga table bi ñu teg nii gis nga chaise bi yooyu noonu décor bi aussi kiwul mais à part loolu ñun je pense que côté matériel euh, gars yi ngi jàpp si xeex bi au niveau de ñoo ngi ci quelque chose comme trois cent et quelques ASC trois cent et quelques ASC bu ñëwee fii fekk fii benn machine ñaari machine rëche bi ni muy kii je pense que fii buñ fi amoon cinq machines sax mënuñu satisfaire euh, jeunesse bi parce que période enregistrement licence bi dafay nekk foo xamante ni ñëpp a koy defandoo waaw souvent premier août lay démarrer actuellement dugal nañ ci ay problème de phase nationale munoo defal ñeneen ñi tànk waa phase nationale parewul mun nañ wax ne donc fi nekk nii mun nañ ne ay 10 août lay commencé war a jeex ay le 15 septembre souvent fekk calendrier yëpp gënandoo nga xam ne ñëpp nag ñooy soxlandoo licence et cette année ci ce sera plus difficile parce que ren daaw les années précédentes dañ doon def attestation boo déposé rek ñu bindal la nga dem présenter sa carte d'identité mais leen loolu dañ ko éliminer da ngay déposer xaar sa licence génn nga door a football donc may ñaax ASC di ñaax dirigeants yi surtout les secrétaires généraux les secrétaire administratifs il faut ñu def tout pour dara pour teel a dugal seen licence mun cee jot ASC yi mun a football yi parce que boo ñu la nee par exemple Sangomar am na match tey tey tey nga bëgg a ñëw ne don damay déposer tey du mun a ne Sangomar am na match suba suba suba nga bëgg a suba tey tey tey du mun a ne il faut au moins ñu jàppale ñu jàppale seen bopp def ko au moins dans les quarante huit am nga rencontre fexeel ba bul xaar ñëpp teewandoo boo amee cinq ñu ñëw nga dugal seen cinq licence renouveler li nga xam ne moo fi newoon au moins nga am loo xam ne di nga ci mun football yi diiboor nag bu jógee fële ñëw war a ñëw football si tey tey tey nga ne ko tey mënoo football jox ma sa pièce ma defaral la peut-être prochaine journée di nga mun a bokk mais jóge fële Dakar Thiès Mbour Ziguinchor wala feneen ñëw cay tey joxe sa pièce tey football yi tey loolu mënatul nekk parce que licence déposé lañ ko doon tudd loolu dindi nañ ko ci texte bi donc texte bi réglé na loolu fi mu nekk ni amatul licence déposé pour revenir rek ci matériel bi xam ne donc euh, urgence bi dafa toll foo xamante ne damay lancer appel autorité faticoise ñu jàppale ñu euh, machine bi nga xam ne mooy tiré licence yi un million cinq cent mille lay jar un million cinq cent mille moom lay jar xam ne nag yoo xamante ne da ngay nekk fii di gérer yi muy jafe mënoo am machine boobu ñu bokk machine boobu ak Fatick eh, ñun waa Fatick ñun waa Kaolack ak Diourbel ñetti région yooyu buñ naree bokk benn machine day gën a métti encore nga war a jóge fii bu Kaolack yendu fa wala nga fanaan fa te mun nañ la ñàkk a tiiral loolu dafay métti donc euh, bu ñu amaloon suñu bopp suñu machine bopp nag fii lañ koy sant xam ne ni lu ñu defar tey bu subaa au moins wala ci guddi gi équipe bi fii nekk mun a sacrifier wu mun ko tiire nga ne équipe bi mun na déposer tey football yi suba am nañ nag ñu ko mën fii ci Fatick euh, vraiment sans exception ñoo ngi leen di tàllal suñuy loxo pour ñu jàppale ñu jàppale jeunes si Fatick bi par rapport ak loolu noonu machine tirage licence yi daal vraiment c'est une urgence. ñun bon je pense que suñu mandat. année bi ak bii di ñëw la euh, bu ma sañoon sax wax dëgg fa yàlla nag mu fekk ma ci yeneen waaw mu sañoon mu fekk ma ci yeneen parce que yii neexul te euh, man yàlla dafa def depuis ma petite enfance ci nawetaan laa yëngu nekk euh, capitaine ASC secrétaire ASC jóge foofu dem créer une zone la zone de Pata nekk président nekk ñëw ay CQRP ainsi de suite presque mun naa ne dama rampe ba yëg si fii mais rampe bi day jël temps pour nga nekk yenn yi nen yenn yi ba yëg si fi nga war a yëg si day jël temps et on prend de l'âge buñ sañoon nag xale yi aussi dañuy gën a jege si gën a jàng ci ñun nga xamante ne vraiment dañ leen di jébal leen ngay ci jàmm ak salaam dem defi yeneen toppatoo ci suñu njaboot parce que fii de famille moo gën a neex yenn yëpp mais loolu yëpp def ñuy fii passage la rek Euh, dañuy dem ñeneen ñëwaat te dañuy ñaan yàlla mandat bi di ñëw aussi yàlla dafa ñeneen ñëw euh, euh, yore mbir mi doxal ko niñ ko war a doxale parce que lii moom c'est pas une finalité quoi jaar-jaar la rek quoi on fait pour satisfaire jeunesse bi gis nga lëkkoo yi ñu nekk nii yéen ko mën a gisal seen bopp ñaari box lañ fi am dañoo def face au soleil dañoo exposé à la pluie kuy taw ñun année yi passé dañuy obligé sax du lieu ay bâche luye bâche toute une saison parce que da ngay couvrir nit ñi taw bi ñëw ngelaw li ñëw sani bâche bi fële nit ñu bàyyi bâche bi foofu di dugg fu ne ñu jéem a bokkatu mënuñ fa kii ñu dugg ci salle bi ay cinquante soixante personnes dans cette pièce là loolu mënul la nekk dafay métti muy naaj ñëpp mënuñ xaji kii bi ci siège bi ne ñi nga tegal leen ay banc ci biti sous la chaleur loolu dafa métti donc ñu xam ne dañu war a jàppale utal ñu ay locaux conseil départemental moo war na tey jii mun na ah kaay leen dugal leen fii ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne c'est des personnes de yoo xam ne war nañ mën a xalaat ni ñii li ñuy daj fële jaadu na jaaduwul parce que ñoom ñoo ko engagé wu mais mun nañ leen jàppale nag pour aussi ñu gën a jàppale jeunesse bi euh, matériel bi nga xam ne moom la ñuy soxla nekkul loo xamante ne peut-être dañ koy def xaw ma nu ma koy mën a expliquer mais dafay laaj tuuti confort hmm, foo xamante ne boo fa toogee euh, xëy na nga xaw a nekk à l'aise toog six heures wala sept heures du matin ba ay dix neuf heures le temps nga dem jënd bu su ndox naan sax danga day métti ci yow nga toog ci yoo xamante ay banc yu wow ay chaise yoo xamante ne kii na ñii chaise yi di dem ak ñoom ñuy daanu dafa métti c'est très compliqué mais autorité yi aussi au niveau des subventions am na ñoo xam ne gaa ñoo ngi koy def Hmm? mais ñu leen di ñaax ñu yokk seen loxo xam ne lépp luñ leen lu ñu jox tam mënul doy waaw mënul doy ASC yi club yi euh, zone yi ñoom ñëpp sonn nañ ODCAV ci boppam ñu dañu yaakaaroon avec l'arrivée de du nouveau président du conseil départemental dañu yaakaaroon ne vraiment suñu yeni souci yëpp euh, dam dina dem mais ah au moment bi may la wax nii c'est une déception. loolu loolu ñun état de lieux li ñu naan état des lieux situation sport au niveau de Fatick Fatick dans le département la lay wax parce que ñun j'agis toujours en termes de département Fatick dans le département état des lieux bi fépp boo xam ne am na infrastructure état infrastructure bi wax nañ ko fépp foo amul infrastructure aussi wax nañ ko tënk ko ci kayit yóbbul ko ko. ñu demaat au niveau de Dakar ñu rappelé waat ne ñun ñoom aussi ils ont fait un état des lieux plus kii diagnostic boo xam ne moo gën a kii euh, gën a été dugg nañ foo xam ne ñu jotul foon egg yooyu yëpp donc ba yàlla def na je pense que bu nekkee xam situation euh, jafe-jafe en terme de d'infrastructure lu mu mën a doon ci wàllu sport au niveau du département ñoom xam nañ ko mais jusqu'à présent ça tarde à se yi te li ko gën a firndeel mooy gis nga comme pelouse de Fatick bi nga xam ni parce que yow dama jàpp ne ya nga yaakaar ne affaire yi Fatick la rek dans la commune or que c'est c'est départemental mais pelouse de Fatick bi fi mu nekk nii solon les dires te mun naa ne sax c'est de source sûre may nañ ñu benn tapis bu Demba Diop bi jëppa la nommé bu Demba Diop ñu may nañ ñu ko parce que dañ koy renover tapis bi dañ ko teg dara ñu ko war ko commencé ñu ne kon may nañ ko waa Fatick par l' intermédiaire du président de la Ligue de Fatick donc loolu dañ koy rafetlu di ko ñaanal yàlla yàlla loolu antu mais lan mooy jafe-jafe bi ku koy lal ñi koy lal rek loolu mënul am à Fatick mënuñ aussi fexe ay jéego yoo xam ne dinañ ko def ba ñu lal parce que loolu aussi dafa métti ci xol demuñ amuñu ba ñu may ñu lal ko rek des loo xamante ne peut-être xaw ma ñaata lañ koy lale mais mënul weesu deux millions xol bi ngay jënd eh, ak main d'œuvre bi loolu nekk loo xamante ni war nañ ci jël ay disposition peut-être que bon kii DAGE du ministère des sports dina ci def ay jéego euh, yaakaar nañ ko ci moom te sincèrement fi mu nekk nii moom rek moo fi sës pour defal ñu loolu jéego yooyu pour que aussi projet bi mun a continuer mun a aboutir Fatick actuellement bu njëkk mënoon nañu wax ni soxlawul deuxième tribune mais li ñu gis ci fan yi wane na carrément nekk que soxla na deuxième tribune donc euh, par ricochet ñu koy wax staffam euh, vraiment pour ñu jàppale ñu pour deuxième tribune boobu mun a aboutir mais ñu jàppale ñu également pour que pelouse boobu ñu lal ko stade bi car macha allah éclairage bi maintenant ça va euh, doon nekkatul kii xanaa kay refeeraat éclairage bi nga xamante ne moom nekk ci tribune yi ak ci vestiaire yeeg yooyu noonu mais par rapport pylônes yeeg yooyu noonu moom je pense que ça va maintenant Fatick moom ñun dañoo ñemewul ci lu bëri dañu ñemewul dañoo réticent parce que dafay am loo xam ne dañ koy gis ailleurs mais doo ko ñemee wax sax biir parce que dafa am loo minimum boo xamante ne à chaque fois boo ko amul am na yoo xamante ne yenn rêve yoo xamante ne doo ko ñemee am Moi, je suis allé à Thiès, phase nationale Thiès, 2000, 2000, 2021 bi Maniang Soumaré boobu kii bi éclairage bi euh, doyul baaxul gars yi ne non duñ fi footballé mais autorités yi ñoo ne dinañ fi footballé en moins de vingt quatre heures collecté nañ somme bi nga xamante ne moo waroon defar lépp en moins de vingt quatre heures nit ñi ñëw ñoo ngi football ci ci kii bi bëccëg bi nii mais balaa guddi gi éclairage bi ñu régle ko ils remier remué terre et ciel pour ñu fu ko mun a jënd ñu andi ko jënd ko monte ko Fatick combien de jours lañ toog fii éclairage bi baaxul bay laa fali que les zones un et deux ñoom ñu def seeni ay yëngal-yëngu yooyu noonu ñu dóor ko rétablir donc ku amul loolu je pense que ay groupe yooyu noonu da ngay am des difficultés pour ngay xalaat yooyu noonu mais ce serait vraiment un idéal te mun nañ ko Fatick euh, ñaata cadre ñoo fi nekk Fatick également ainsi de suite ainsi de suite dañu koy wax vous euh, vous êtes gâtés ay année yoo xamante ne on avait tout loo xam ne day yëngu ci football lépp Fatick la nekko mais malheureusement am na yu bëri yoo xamante ne manqué na fi bon il n'est jamais trop tard nag pour bien faire dañu dañuy yaakaar ne xëy na dinañ ko musa def. que dañuy yaakaar na nañ ko mos a def buñ ko defee c'est tout simplement le bien de la population faticoise gëm nañ sport bi nag sport football surtout boo organisé au stade les gence moom à partir de dix huit heures bu ñu demee liggéey ba wàcc tu retrouves tout le monde tout le monde est au stade donc moo tax pelouse bi mu nekk nii surtout suñu loge bu ndaw boobu noonu attanal pour nit ñi que il temps ñu finaliser tribune bi il est temps aussi ñu jàppale ñu pour pelouse bi ñu changé ko pelouse de 2013 jusqu'à présent ñu ko am Fatick ñu ko am Sénégal bëriwul ñi lal nañ lalaat te ñun ba jusqu'à présent li yoroon rek moom lañ yoraat may jégalu vraiment ASC yi nga xamante ne ñoom lañ saxal mbir mi euh, parce que jusqu'à présent nous peinons à organiser nos phases départementales euh, final bi surtout final am nañ final cadette de deux mille vingt et un am nañ final cadette de deux mille vingt deux am nañ infidèle senior de deux mille vingt deux yooyu yëpp mënuñ ko jouer lu tax parce que gisuñu parrain jusqu'à présent te on ba pas aussi euh, ñu dem feneen di wuti ay parrain ñuy naan waa Fatick waa Fatick waa Fatick dafa rafetul mais ñoo leen di ñaan képp koo xamante ne mun nañu ci dimbale nga dimbale ñu ñu organiser suñu phase départementale ce qui s'est passé ñu nag le conseil départemental on est allé à Dakar voir le président moo ñu sur sa convocation sur sa propre demande ñu dem ba foofu ñu exposé ko suñu mu wax ne ni ambition au niveau di département wax a wax a wax ba ñu jël ay date kale ay date au au dernière vingt quatre heures mu door a ne non musuma cautionné date boobu musuma nangu parrainage bi musuma cautionné date bi sama calendrier politique permettre ma ma koy def je pense que loolu euh, on peut avoir mieux que ça nous méritons également mieux que ça ñun nekkuñ ñoo xamante ni bon dañuy dox di wax loo xamante ni wala di def loo xamante ni naka lu dul noonu la mais nañ ñu jàppale euh, surtout ñu respecter seen engagement parce que nit ki boo ko teelee ne comme ni ko séeréer di waxee boo ko deelee ne déedéet rek mel na ni may nga mais li gën a bon nga ne ko waaw te waaw boobu du nekk waaw am na keneen koo xamante ne peut-être bu déggee mbir mi dina xam li may wax nous comptons beaucoup sur lui pour que vraiment loolu processus bi ñu entamé mun na aboutir et bu aboutir je pense que aussi les éditions passées Alhamdulillah, nous touchons du bois et remercions tout le monde parce que nous avons fait Patar deux reprises, nous avons fait Palmarin, nous avons fait Fimela ñëpp ñoo xamante ne ay phase départementale groupée groupé foofu ay cas ay jeunes pour quatre jours et ça s'était très bien passé sauf que l'année dernière vraiment déception bi ñu am mooy que on voulait faire ça à Fatick jusqu'à présent amul Fatick moo ngi gëj a organisé phase nationale en boobu xam naa ñaata at nga am ba léegi mu suñu organiser phase nationale parce que suñu phase zonale suñu phase régionale suñu phase départementale ñu pena avoir des parrains kon kooku est na phase nationale dina am ñoo xam ne dinañ nekk fii Fatick juddoo fi yaroo fi benn màgge fi dem sëyi dem defi leneen te duñu vivre ambiance phase nationale loolu aussi rafetul ci dëkk boo xamante ne lépp ci jëm ci sport niveau national xoolal ñu fi ñu fi représenté donc loolu aussi dafa rafetu nañ ci gën a góor góorgóorlu lu ci waay man rek mu def ci ci yàlla tax en tout cas nous sommes là euh, pour la jeunesse nous œuvrons pour que vraiment cette jeunesse là am lépp loo xamante ne yeneen jeunesse yi am nañ ko euh, mérito nañ ko ñoom ñëpp donc aussi autorités yi il faut ñu accompagner accompagner ñu pour loolu mun a am ma leen di remercier bu baax a baax Mindiss TV euh, ak seen auditeurs yëpp ñoo leen di jaajëfal bu baax a baax seen rafetaay seen liggéey rafet na def ngeen ko ak ak ñun à plusieurs reprises amuñ ci benn regret waaw et nous ouvrons nos portes également nous tendons la main à tout le monde mais malheureusement suñ partenaire privilégié mooy Mindiss te ñaan naa leen aussi ngeen couvriral ñu suñu événement yëpp départemental zonal zonal bu ma ko waxee nag c'est avec au pluriel parce que 19 zones la ñu nous avons douze neuf zones deux yi ñoo nekk biir Fatick mais ba Palmarin ba Patar Jaxaw Ndiop Diawle Mbella Kajoor yëpp nous som là taata gi tout Niakhar tout donc fu ngeen ñu kii même à travers peut-être euh, les WhatsApp à travers le SMS ñu mun leen di wax suñu résultat blogueurs yi ndaw yi ñuy kii nii ñu mun leen di envoyer affaire ngeen di ko à travers bo vos votre chaîne aussi je pense que loolu ce serait bien ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di remercier également euh, monsieur Gadiou ñoo ngi koy sant di ko gërëm gis nañ taxawaay bi yal na ko yàlla yokk yéen ñi aussi ngeen bëgg egg si mbir mi na leen ko yàlla defal barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam